jàngoroy drépanocytose mooy lan ci suñu deret am nañu ay xeetu doom yu bari benn ci ñoom ay jàmbaar lañ seen liggéey mooy yóbbu lii di oxygène bi ñuy soxla fépp si suñu yaram di ko jaaree si yokk doole bu tudd hémoglobine nit ki amee jàngoroy drépanocytose day am hémoglobine bu wutee ak yenn yi di ko woowee hémoglobine S si yoon jàmbaar yooyu di yóbbu oxygène bi ci sunu yaram dañoo nuru cercle dañoo nooy neexalem loolu dina tax ñuy mën a yëngu bu baax ci biir ci dutu nit ñi fi seen deret di jaar bu nu amee jàngoro drépanocytose jàmbaar yooyu di yóbbu oxygène bi dañuy mel ni weer bi wala gopp baykat yooyu jàmbaar duñu lemu yokku ci dañuy yëngu ndànk ba tax suñu deret du daw bu baax jëm ci yeneen cër yi ci yaram boole ci ànd ak metit bu tar bu mën a yàq say cër wala ñu dagg bari na jàngoroy drépanocytose dina dal góor ak jigéen mën na nañu ko doon ci sunuy waajur bu mët walla bu mëtul mën nañu ko wàllu sunu ay doom. risques yi ci am am na solo xam ne jàngoroy drépanocytose mën nañu koo am bu dee dañoo cosaanoo wala xeetoo Afrique wala hispanique wala Europe ci soow wala fi penku di sosoof wala Inde. nu muy feeñee ak ay jafe-jafeem. ni muy feeñee jàngoro drépanocytose mën naa ute si nit ak beneen nit mën naa ute tamit si diir bi si njëlbeen bi ni muy feeñee dinañ ci boole feeñee lu ñàkk deret maanaam anémie sa yaram ñàkk leer coono sa yaram daanu si sa kaw néewi néewi sa loxo ak say tànk bu ànd ak métit ak tamit mën naa feeñ ay métit yu tar ay feebar yu doy waar ak ay cër yu yàqu yu mel ni sa rat bi sa yuur say bët sa foie sa xol bi sa awra sa articulation yi wala sa yax yi caytu bu teel bi nit ñi xamul ne am nañu jàngoroy drépanocytose mën nañoo caytu seen wérgu yaram si benn caytu bu gaaw wala si ñu caytu seen deret am na solo xam ndax am nañu jàngoroy drépanocytose bu mët bi wala bu mëtul bi am na solo si xale yi si jigéen yi ëmb wala liir bi doog a juddu bu rombee caytu bu teel bi docteur bi dina la mën a digal ay garab yooyu war a jël wala mu digal la ñu defal la deret beneen pour wàññi ni muy feeñee wala ay jafe-jafeem mën nanoo gis tamit ku ñuy dolli xel su lu jëm si mbirub deret pour duñu wàllu suñu doom bu ñuy am doom